gannaaw ba mu amee jël nañ mesures yoo xam ne mesures yu am solo la benn bi mooy euh, ki nga xam ne feebar daf koo dal ñi nga xam ne ñooy njabootam tey jii ci guddi daan leen yóbbu hôtel loolu mooy li nga xam ne moom la gouvernement bi décidé te tam moo gën dañ leen yóbbu ñëpp hôtel muy waa këram yëpp lu mat fukki nit lañu kër euh, rakkam bi nga xam ne moo ko gënoon a jege tam parce que dafa daan nekk ak moom ba mu feebaree tout ça booba xamuñu ne coronavirus ko dal moo ko jàpp euh, kooku tam dafa jege woon. donc ñoonoon ñu ay contact à risque lañ ñooñu aussi dañ leen di yóbbu bu mat laal buñ ko xaymaa ci tàmbali bi parce que xamuñu fan la ñu jëm ci tàmbali bi mat la ñu mat euh, ñaar fukki nit tey ji hôtel ba la ñuy fanaani dañ libéré ñaari kër yi ñu jël leen ak suñu moyen transporter leen ñoo leen di defal lépp bu ñu demee ci hôtel ba ñoo leen di yoreel seen lépp ku ci nekk ñu yóbbu leen seen nekk euh, xool leen euh, may leen temps ñu xool ndax dañuy développé feebar ba mu déet kër ga ñu tëj ko am ñu gardiennage ñu yóbbu ko police mu fay garder 24 heures sur di ko surveiller parce que ay bagage ak ma seen i lépp nga fa loolu bokk na ci mesure bu ñuy jël tey beneen bi mooy euh, transport bi ni ni ñuy mel ci transport bi jaaduwul dañuy sax fees dell te te dafa nekk loo xam ne mënatuñ ko nangu ba tax na li ci arrêté bi wax moom la ñuy appliqué tolérance daal dootuñ ko def li mu mën a yëpp muy xaaj bi ba nga xam ne day féex du am concentration humaine nit ñuy weccoo ay euh, noy lépp mën fa am euh, loolu daal dañuy fexe ba suba loolu dootul mën a am dañ ko tere ñi nga xam ne tam dañuy du ko ko génne di dem ci yeneen région yi di ko ko génne ñooñu di ko ak génne bi dem bég ñëw bi mooy waral feebar bi di tasaaroo loolu aussi bañoon nañ kanaam jàpp nañ ay jakarta jàpp nañ ay oto waaye dañuy gën a taxaw pour loolu pour loolu bañ am si biir marché bi tam ma dellu si am na ay koñ yoo xam ne moom saa yoo demee day fees teel ay ay nit lu mel ni maquette bi fu ñuy jaay ay portable ak yooyu saa yoo demee la nekk ji nit ëpp na dayoo yooyu à partir de suba yooyu yëpp dañ leen di tas point yooyu yëpp dañ leen di tas ba kenn dootu fa ne ba tax na ñay jaay lal wala ñay nekk sa cantine ya wala ñi nga xam ne dañ teg seen table ñooñu ñooy nekk ci marché bi waaye ñëpp ñi nga xam ne dañuy taxawaalu fees dell ci koñ yi yooyu dañ koy tas te ci marché yëpp la du ci marché occas rek marché yëpp la ñuy tas fépp foo xam ne nit ñu dañ fay dajaloo raj euh, raj loo fa dañ koy dindi ba loolu dootu fa dootu fa mën a am heure yi 6 heures ba 3 heures la euh, xam nga ne loolu lañ leen mayoon sax naam ndax su sous préfet jëloon na benn arrêté ne marché yi day tijji 6 heures ba trois heures waaye après moom mayoon na tolérance sax ba 4 heures waaye loolu dañ ciy dellu si dootuñ maye tolérance 6 heures 3 heures fu mu jotee cantine yëpp tëj nañ marché bi laal nañ parce que booy toléré kay day fekk yaa ngi si jàmm waaye yaa ngi loo xam ne ñun xamuñu fan la ñu jëmee ndax contact communautaire dafa dafa grave parce que ki ka am xamul fan la ko jëlee xamul sax ñamu wàll loolu nag buñ ko amee dañuy defaraat suñu toogaay moo tax lañ maye woon dootuñ ko maye règlement bi daal li ñu tëral dañ koy respecté ndax dañuy bañ bu law ba jéggi ñu day dégg day romb ñu